bis bi nag xam ngeen ne fu ne tey waaye bàyyi ko na fa ñëw ziyaare mboolem kilifa yi njabootu sëriñ bi kenn ku ci ne bàyyi nga fu ne sa kër bàyyi fa ñëw ziyaare euh, soxna Astu ak sëñ Abdou mi nga xam ne tey jii ku ne xam na ne euh, yoon wi kenn desut loolu nag doon loo xamante ni nii taalibe yi am nañ ci mbégte mu rëy fi fii ñuy waxee ak ñi ngi ànd ak mbooleem groupe de presse yi nga xamante ni nii ñoo daje fii ci kër Cheikh Abdou moo xam Istikhama TV la ak académique Minane mi ngi fi ak euh, sunu info ñoom ñëpp ñi nga ànd ak ñoom ci liggéey bi rafet bi nga xamante ni tey ñu ngi koy amal fii ci kër Soxna May Bintu Xaadim Rasool ñu di leen jox dig daje rek ànd ak yéen ci biir wan leen ziar yi nga xam ne moo am ci Soxna Assu waaye wan leen ziar yi nga xam ne def nañ ko fii ci Cheikh Abdou Bali Mbacke ak kilifa yi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci ay gox yi fasantikoo ñëw di ziare ci bis bi loolu lépp incha allah dinañ fexe dara bañ leen ci ump wasal ya aziz wa tusallima ala alladi faaqa alkirama alama ووقتيب الأنبياء والآلي وسابي في الحال waaw yamal gépp nag ñu ngi naaw ginnaaw waaw buñ sa buñ sañoon nit nag ñëmante ñëw mbàkk namm nañ la jàkkaarloo yow rek lañ bëgg mbàkk namm nañ la bëgg nañ laa gis ndax ñëpp mënuñoo ñëw te ñëmante ñëw bëgg nañoo ñëw waaye sa jëmm lañ bëgg a gis waaw ndongo it euh, bëgg naa ñëw waaye station boobu wax na la waaw nee di leen sant ci seen taxawaay ak seen pas-pas na foofee ca dëkk boobee nee na 1998 la ko sanc nee na laata mu koy sancit nee na dem na wër ca tund wa nee dem fa dëkk yu bari yàlla dogal nee na mu am fa wëllëre wu baax muy Serigne Seck ne muy wër ba egsi fa ñu ne ko sëriñ bi fii may nan la fi kër danoo bëgg nga sanc fi sëriñ bi daal di ñëw sanc fa boobee nee na lépp lu ab bi di defal jëwriñam yéen yéen a ngi ko koy defal nee na ngeen gis ko ak ngeen ñàkk koo gis seen tollu àllarba ba ngeen fa am nee mustadak ngeen mu ñëw fa amul suuf ñu bari ci yéen jox ko suuf nee na ñes mi toog ci la bokk kon nee na ba ngeen gisee jataay bii mu waxal boppam da leen a bëgg a santal boppam jant gu am firnde boo xam ni réew mépp dinañ xam ni defal ngeen ko teraanga te yëg na ko kon mu ngi leen di sant di leen gërëm sëriñ bi nee di leen xamal ni lan yeen boole woon démb ak bërki démb muy jëmmi sëriñ Touba loole rek loole ngeen di feddali saa su nekk ñee ñoom tamit seen wàllu bopp loolu la ñuy feddali waxtu wu nekk kon daal nee na ña nga xam ne des nan fa ca jëm nan mag ba mënuñoo dikk bu ngeen demee bu ngeen demee ngeen jotal leen ay cantam ak i ngërëmam nee na di leen gën a boole ak sëriñ mii nag ndax moo nekk ca kër ga nekkin wu rafet ndax daara joojee muy wax Moustapha yi nee moom mii moo ko yor jàngal goney dëkk bépp ba ku ci mokkulul fer nga ijji loolu pas-pasu sëriñ la nee na ca mën na ni ba mu ñëw waxtu wu ni jàngalu ab kaamil dañuy war ca tund wa di dajale ca loolee defatuñu ko kon nag moom mi nee toog na fa ca ndigal lam ko fa bàyyee woon sëriñ bi nee kon mu ngi leen koy gën a dénk bu ngeen ko gisut ca gis sëriñ mii xam leen ni moo fay jëmmam kon mu ngi leen di sant di leen gërëm ne ngeen dem ca dal ba tubarkalla tàllal leen loxo yi mu defal leen wal maram wa xayra ajrin wa ridan bil intiram wa salli ya razzaq wal tusallima ala allazi bi aqudu al ulama ila siraj al mustaqim qawda يجعد كل ذي النفور زودا وهو الأبيب الطيب الأسيب سيدنا الأنقاء والنسيب والآل وسبي وبالإسراء أبلي كوني بزر كل رائي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تغرب وجد بالنزل أبلي كون الرزق قائدا إلى غير الجنان ذا أمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء واكفني الجفاء mbokk yi sëriñ bi nee na mi ngi leen nuyu bu baax ñëw teew ci bis bi ngir yëf yu bari teew fi ngir jëmmi bis bi teew fi ngir jëmmi waajuram wu tedd wi di soxna Maymunatu Mbàkke bintu Xaadimu Rasuul ñëw fekk ci sëtam bu tedd bii di Cheikh Abdou Bali ak njaboot gi ci kër gi yépp nee mi ngi nuyu ñëpp nag waaye nee na fi muy tàmbalee ay kàddoom rek mooy lam waxoon fële ci asalam rek nee na moom lay waxaat dëgg na saan wu jam ñaari picc nee na la wolof yi di wax nee na mooy bis bi sëriñ bi nee na laylatul xadri ku ne xam na ni laylatul xadar ni muy demee ku ne xam na ko waaye laylatul xadri goo xam ne soxna Maymunatu moo ko sos bàyyi fi ñu mel nii ñu di ko doxal day laylatul xadri goo xam ne yemut ak yëpp moo tax nag ma ne saan la muy jam ñaari picc ndax soxna si bu ko sosoon te du laylatul xadri sax jam na moo tax nee na moo tax mu ñëw di barkeelu ci bis bi di ñaanal sëriñ Abdou ñoom yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg koo def ñu nit ñu yàgg koo fekke ànd koog ñoom nee na bis bi bisum njariñ la boo xam ne njariñam sëriñ bi nee na mënee sutu tudd sax asakaam sëriñ bi nee na loolu rekk la sëriñ bi nee na mi ngi ñëw di la siyaar si yow si Abdou Bali xool bee sedd li am sëriñ Falloo waxu taanoon ak soxna may ci bis bii guddi kero yaari ginaar la soxna may am yaari ginaar yooyee sëñ Basiiru Saar jaamu sëriñ Tuuba da ko ni ko def ñaari junniy ginaar at mu jot ndax waxi sëñ Fallu ja sëñ Abdou ne sëñ Fallu fu mu jaar mu dim ngir waaye fu mu wàcc muy njëndi booba la ko def juróom-ñaari minute dafa des ci julli timis sëriñ bi yebal ma ni ma neel gédee na génne oto bi ma ni gédee gédee ja sañ bi nee na nga oto bi dañuy génn ñu ni ma sëñ bi waxula ko julli di jot sëñ bi génn Tuuba ñu ni nguur si na ñu kii lu na sëñ bi sol bot yi taxaw ci saal bi ku ne song soot ba mu demee ba tollu ñu ñi sa sa wetu kër ci jàkka ji te booba sëñ Abdou Khadir mooy xalif général ku nu muri mu tourné ne sëñ Thierno Moussa naan wàcc ñuy julli xam nga lu ma jublu ci lii mun ko loo jublu ci lii mun ko xër ci sëñ Fallu ca koñ boobee keroog fa la Cheikh Abdou Khadir Mbacké jullee timis ba ñu jullee ba sëñ man mu daal di woo sëñ Modou Mamoun naan sëñ Thierno mu yegsi mun ko xam nga lu ma jublu ci lii mun ko loo jublu ci lii mun ko xër ci sëñ Fallu rek loolu nag Mbàkke mooy seen toogaay bii Cheikh Abdou ne sant na leen gërëm na leen ne moom day wéetu ndax yéen ci démb li ma génne ci télévision bi yaag soxna Bali laa génne soxna Bali toog ni ne ñëpp déglu sëriñ Moustapha sëñ Abdou Khadir it mooy sëñ Fallu sëñ Fallu ay sëñ Abdou Khadir du yaari kër genn la moo tax sëriñ bi xoolam sedd na lool tey li daye ci moom sabi bi aqi nuuri ya ma'iya al-inkari wa tasniri wa salli ya mu'izz bi taslimi ala allazi safa bihi ta'ali ñi fi nekk itam mu Cheikh Abdou Mitey naka jekk dafa gën a yeesal loolu dëgg la yàlla def it muy cërub Cheikh Abdou Lahad ci daaw ko sëñ Cheikh Abdou Lahad ba mu ko tuddee Cheikh Abdoulaye ba ci Cheikh Abdoulaye ba ma du ma ko wax ci mbooloo bi. Cheikh Abdou xam na ko xam naa ko ña ko war a xam xam ne. dëgg la dëgg la. te kanam rek lay jëm. amiin amiin Mbacke amiin. ñu ngi leen sant di leen gërëm. alhamdulilah ci seen taxawaay yu rafet. jërëjëf Mbacke. ak jëf ji ak jëf yi. Mhm. ndax euh, Seydou May moom moo mujj ci seetal xel. Mhm. waaye Sëñ Abdou Lahad da ko téye woon téye woon wax mhm. am na benn bés rek. màgg bii muy def ci barab bu Sëñ Tuubaa bi. sant yow bi bi ñu ko indilee mu woowoon ñu mhm. ñu ñëw. wala dikkee bi man moom soxna May ñu toog mu ko bi biir ak mhm. su ma ci noppee nii laa bëgg mu mel nii. ay dëgg soxna May téye mar lii de boo xoolee sax da ngay gis sa bopp. ca mu daal di reeri ko soxna May ginnaaw sax xol seet na ci rek sama xol seet na. ndax sëñ Tuubaa ka tax may liggéey. Mhm. loola nag ñi mu fi bàyyi. fa mu tegoon tànkam ña ko fay teg.

asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bi nee day kàddu yu ndigal rek waaye maroon naa ñàkk. nee na kilifa gi sëriñ bu waxee ba léegi ba pare lu ci waaye nag sunu xol sedd na bu baax. nee biñ fi duggee. li ñu xalaat rek. mooy soxna seef nekkul. waaye bis bi nu mu daan mel rek mel na loolu mooy firnde ni mbirum Serigne Touba du deltu ginnaaw mukk njaboot gii mu fi bàyyi ne wax na ko barki dem ndax waa daaru barki démb rek la leen sëñ bi daloo fii fi ndoge loolu lépp sama kanam ne soxna may galas ñëw fi bi nu ndogee ba pare dani soxna may de lépp lu mu sosoon ni ko sëriñ daan waxe soxna Bally téye na liggéey ba yóbbu ko fu mu ko war a yóbbu ànd koog njaboot gépp kon njaboot gii mu fi bàyyi muy sëriñ Cheikh Abdou Mbacke muy soxna Assou Mbacke ak sëriñ Mahfouz mi seen kilifa yàpp na ni fépp ko soxla si bàyyi woon dinañ ko yóbbu fu raw foofu ndax gis nañ seen taxawaay gis nañ seenu jàpp ci bokk bi gis na nit fi mu jëmee lëggéeyul soxna si nee bi muy ñëw léegi moom sëriñ dan cooto gi ñu waxtaan danis soxna bari day jikko yëpp gën a moom la ko suñu borom joxoon ndax daawul dugg ci lu yoonam ñëpp daawul jëw daawul seereel kenn lu ñaaw sëriñ dana ko seere léegi ci oto bi ñu ñëw te ñun ñëpp loolu lañ xam ci soxna Bally de di ñaan li sëriñ Mahamadan ñaan de li sëriñ Touba di séddale ëllëg yàlla na ci ba doy ne ñun daal suñu xol set na sëriñ Cheikh Abdou ñu lay sant bu baax taxawaay bi rafet na yàlla na jëm kanam ba fépp foo bëgg a àggale liggéey bi yàlla na fa àgg ci barke mais dañ cee rafet yott na ndax ndax di ngeen ko taxawee ndax soxna si jëf na ko bàyyi ko fi te jàpp nañu di ngeen ko sàmm yal na nu ànd ak yéen sàmmale leen sëriñ Dan sëriñ bi nee na ñu ngi bu baax yow sa taxawaay ci mbokk gi dafa rafet dëgg la fu yoon wi xewlee wala ku xewle ci yoon wi ku fa dem fekk fa sëriñ Dan. wala bu fa toogee rek fekk sëñ dam fekk ko nee na démb rek nga la ne ko jaar fi sama kër boo jógee daaru ñu ànd ñëw fii nee na noonu la ko defee nee mbokk yëpp ñu ngi lay sant nee na na ko ko bàyyi seex daan waxee dala daan wax ne ñun waa Daaru Mouhty yaay suñu ambassadeur Touba ndax sëriñ Mahmadane ko te loolu sëriñ daan matal na bu ما رضائي والدسف لي زمان ولي بحق ياسين المنى بلا تزلزل وخجل الأمنا